asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm ndax Ousmane Sonko dina dem wala du dem wuy ji eh, ci wàllu procès ga ko woo ci affaire Sweet Beauté fi mu nekk ni daal lu ñu mën a jàpp ak julikaay bii di si quotidien moom mooy ne ay bés bi ñu génn saa su ne ñu ngi doon dégg ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite coordination départementale yu Pastef doon fësal seen kàddu di xamle ni ala mukk du ñu bàyyi ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko di dem wuy ji julikaay bii di si quotidien du ñu xamal kon ne ba léegi parti bi di Pastef kenn xamul teewul ñoom ban décision la ñu daal di jël jëmale ko ci wàll gi ni mel ki wax loolu moom mooy docteur Diallo Diop nekk vice président bu parti PASTEF chargé du panafricanisme et des questions mémorielles moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM foofu la dal di xamle ci micro Bayoumar Gueye ne seen parti waxaguñu ndax kii di Ousmane Sonko dina dem wuy ji ci wàllu procès boobu am déet moom moomu di docteur Diallo Diop daal di gis sax moom électorale te it liñ ci bëgg moom mooy toroxal kii di Ousmane Sonko fexe it ba daal di koy dindi ci ñi nga xam ne dañoo war a mën a nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ne moom dañoo nemmeeku ne dafa fës ci biir réew mi ndaxte ki nga xam ne de moom moo nekk ci bopp réew mi moom pare na ngir fexe ba képp koo xam ne danga koy bëgg a tere nekk candidat wala boo ko tere ka gagné élection yi ñu dëgmal mu daal di la fi jëlee wante nañu jàpp ak bii di critique ne laata procès ci affaire suite beauté kii di Ousmane Ousmane Sonko ci ñaari fan ci weeru février dina njëkk dem sax wuy ji nag ci kanamu yoon ginnaaw bëgg fa Mame mbay Niang daal di woowee moom moom nga xam ne kii di Ousmane Sonko daf koo tuumaal ne dafa am koppar gu toll ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yoo xam ne daf ko luubal te mu daal di feeñ ci ab rapport boo xam ne waa IGE ñoom ñoo ko daal di fësal coolikaay bii di critique ne Ousmane Sonko dina dem am du dem li am ba des moom mooy ne ci affaire bi ni mel tegoon nañu ay daan ci ndodd suñu naataango yu nekk ci coolikaay bii di laas ña bindoon article ba jëmale ko ci wàll gi ni mel sax juróom-benni weer ci kaso yu ànd ak sursis li ñu teggoon ci seen dodd ndax li ni mel moom moo nar a dal kii di Ousmane Sonko li ci kanam raw li gët ñu desandi ak julikaay bii di critique ndaxte ba léegi coow laa ngi ne cour jëmale ko ci train express régional suñu naataango yi seq waxtaan ak Abdou Ndene Sall moom mi nga xam ne moom mooy directeur moom mooy ministre directeur général bu SENTER daal di ne xamle ne la ñuy ngawti ngawtee fan yi yëpp te julikaay bii la Figaro daal di koy bind dara nekku ci dëgg direct news tamit daal di gis ne waa Figaro waxuñu dëgg bi ñi nga xam ne kon ñoom ñooy askan ba yeewoo fii ci biir réew mi ndaxte kërub liggéeykaay bii di TER réewum Sénégal moom moo ko moom wante culikaay bii di tribune la mu ca gis moom mooy ne Figaro dafa mel ni ne dafa ñëw dëggal kàddu yi nga xam ne kii di Bougane Gueye Dany fësaloon na ko jëmale ko ci ñii nga xam ne ñoom ñoo yore TER bi ñu fay doxalee ak tamit njuuj ñaaj gi nga xam ne moom moo fa am ñu desandi ak culikaay bii di Sénégal ne AMS di association des maires du Sénégal ci ay tukki nemmeeku yi nga xam ne eh, ki ko jiite di Omar Ba ma ngi koy amal jëmale ko ci biir diwaan bi ña nga woon foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès eh, foofu sax ñu bëri ci ay maire yoo xam ne dañoo bokk ci l'opposition bi ñu doon leen séentu ci beneen kuréel bi di réel ñoom ñoo ñëw daal di far eh, ci AMS muy nag kuréel bi nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci kii di Omar Ba mooy kuréel bi nga xam ne fa maire yëpp war a bokk kuréel boo xam ne wàllu politique taxu ko jóg jàppalante ak dimbalante ci seen biir moom moo tax ba kuréel boobu daal di jóg loolu moom moo tax ba moom moom te mu jiite kuréel bii di AMS di rafetlu nii nga xam ne noonu la maire yu bokk ci yeewu askan bi nekk ci diwaanu Thiès daal di ñëw bokk ci seen biir kuréel googu kuréel googu nga xam ne moom dong de moom moo fi war a mën a am bi ëmb maire yi nekk fii ci biir Sénégal njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom taxaw na temm ngir fexe ba lépp lu jublu ci wàllu mbay mu mucc ayib fii ci même ci biir biir colikaay bii di ne suba ci talaata ji fa li nga ne moom mooy ca Grand Théâtre njiitu réew mi yu am solo ñu daal di ciy nemmeeku ay machine ak tamit ay entrepôt muy koppar gu tax woo xam ne nag dugal nañ ko ci te ma ngay toll ci juróom-ñetti fukki milliards ak juróom ci lu jublu nag ci lu lu luwaas bi ba léegi ñu ngi ciy xaar njiitu réew mi wante it l'observateur moo ñu xamal ne ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi ñoom ña ngay xaar lan la ci waa conseil constitutionnel fas yéene jukkee ndaxte premier ministre euh, dafa daal di yónnee bataaxal conseil constitutionnel ngir ñu xool ba xam ndax njiitu réew mi war naa mën a xaatim benn décret ngir fexe ñu daal di wàññi li nga xam ne moom mooy njëgu bi maanaam daal mbir yi duñu ko yóbbooti ca kanamu assemblée nationale libération tey jii di ñëwaat ci ay nit yoo xam ne dañoo nekkoon ci benn gang doon def ay ñawteef te nee nañu ñañ ca ràññee bokkoon na ci kenn koo xam ne da daan faral di jox xibaar police ak gendarmerie amoon na tamit keneen koo xam ne auxiliaire de police la woon benn sapeur pompier boo xam ne dañu koo dàq ak tamit benn commando libéré ñooñ ñëpp nag fu mu nekk nii bi féete na leen gannaaw wante liñ daan faral daal di def ci ñaawteef ñu ngi ko daan jëmale ci ay xale yu jigéen yuy jaay seen bopp dañ daan faral di def descente ci seen i kër ngir di leen laaj xaalis jot nañoo def nag seen ñaawteef googu ca Kër Massar Zac mbaaw Maris ak tamit ca West Foire jeexale ko ak wàllu tàggat ci wàllu CHAN 2023 su naataango di record ñu ngi ñuy xamal ne Niger dina euh, tase ak Algérie mi nga xam ne fa la ñuy amale euh, CHAN bi Sénégal war a tase ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Madagascar ci suba fanweeri fan ak benn ci weexu janvier mu nar a nekk ñaari demi-finale yu am solo yoo xam ne dinañu ko ci nemmeeku ci wàllu lamb julikaay euh, bii di suñu lamb di ñëwaat ci génnub àddina Serigne Modou Niang nekkoon ab promoteur de lutte bu ñu ràññee woon fii ci biir réew mi moom moomu nag di Serigne Modou bés bi la daal di eh, àddina loolu moom moo tax boo culi kay eh, bii di eh, sunu lamb gis nag ne ñii nga xam ne ñoom ñooy lu lamb daal di nañuy ñàkk ku mag ñàkk nañu tamit ku amaloon njëriñ wàllu lamb fii ci biir Sénégal lii moo nekkoon botulikat yi li gën a fës ci biir ëculikat yi ñu leen di ñaanal njeextalu bés ak jàmm mesdames et messieurs bonjour participation ou non d'Ousmane Sonko au procès Sweet Beauté ses partisans se disent très déterminés et comptent s'ériger en bouclier leur vie. Le président Ousmane Sonko contre tous ses détracteurs. Et la semaine dernière, presque toutes les coordinations départementales de PASTEF ont donné de la voix et c'est pour appeler à la résistance. Et pour l'instant, retenons avec nos confrères du journal le Sud Quotidien que le parti PASTEF ne s'est pas encore prononcé sur la participation ou non de Sonko à ce procès. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Diallo Diop, c'est le vice-président du parti PASTEF de l'émission Objection de la radio Sud FM et il a fait savoir à Baye Omar Gueye que leur parti n'a pas encore statué sur la question de la participation d'Ousmane Sonko au procès qui l'oppose à la jeune dame Adji Raby Sarr devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le docteur Diallo Diop soulignant que ce procès résulte d'une volonté obstinée de perpétuer une tradition politique récente consistant à exclure discrétionnairement les vrais adversaires afin de se pérenniser au pouvoir. Il a aussi précisé que Pastef attend de voir jusqu'où ce régime à aller sur cette question pour prendre sa décision. Mis à part l'affaire le 2 février prochain au tribunal de grande de Dakar. En fait, pour avoir accusé Mame Mbaye Niang d'être trempé dans l'affaire des 29 milliards du Prodac selon un Ousmane Sonko devra y aller pour répondre de ces accusations et le mis en cause qui a déjà annoncé la couleur qui ne sera pas de la partie risque gros d'autant que dans cette affaire des confrères ont déjà été condamnés à six mois assortis de sursis. C'est pourquoi selon nos confrères du journal L'As, Ousmane Sonko est sous le coup de la jurisprudence du journal L'As. La polémique enfle sur la propriété du train express régional. Retenons tout d'abord avec nos confrères avec Abdou Sall, c'est le ministre et directeur euh, général de la Sainte-Terre. Il est vite monté au créneau et c'est depuis Tiwawon qu'il a tenu à démentir en disant que c'est de la déformation. Il a toujours dit aux Sénégalais que le train express régional a plusieurs composantes, les rails, le système, les gares et les trains et tout ceci appartient au Sénégal à 100%. Dans le journal Direct News, nos confrères nous parlent donc de contre-vérité du journal Le Figaro et nos parue dans le Figaro n'est que la résultante de la guéguerre entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante du TER. Dans le journal Tribune, nos confrères écrivent que par rapport à cette situation inextricable entre la SNCF et l'État du Sénégal, le Figaro confirme Bougane Le leader du mouvement Gëm lors d'une conférence suivie de débats entre des journalistes et lui-même, avait démonté pièce par pièce la gestion du TER. Et nous restons avec Fédération des maires du euh, Sénégal qui vient d'enregistrer des adhésions de taille. Nos confrères écrivent que des maires de la coalition Yewwi Askan Wi qui étaient pressentis au réel ont confirmé leur ancrage et leur adhésion à l'AMS qui est une association apolitique au service exclusif de tous les maires et à cet effet le président de l'AMS Oumar Ba a saisi l'opportunité pour magnifier d'abord l'esprit républicain des dix maires de l'opposition et ensuite remercier l'ensemble euh, des maires de capitale du et en particulier le docteur Babacar Diop, par ailleurs maire de la ville de Thiès, pour son accueil chaleureux mais aussi saluer son ancrage dans l'AMS, seule association légale, légitime et ouverte à l'ensemble des maires du Sénégal. Le président Macky Sall sort les gros moyens pour booster l'agriculture, selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous feront part de cette euh, information ce mardi. Le président de la République va procéder au lancement de construction de magasins de stockage pour accompagner la stratégie de la souveraineté alimentaire d'une part et d'autre part réduire et juguler les énormes pertes post-agricoles. Au total, retenons avec nos confrères que ce sont 3 euh, 961 unités euh, motorisées de matériel agricoles et 120 entrepôts agricoles qui vont être acquises, dont les plus gros sont 700 tracteurs équipés et autres matériels comme des motoculteurs. Et pour ce qui est maintenant du loyer, on en parle

gendarmerie qui avait monté ce gang. Il était constitué d'un auxiliaire de police et d'un sapeur-pompier radié, d'un commando libéré déjà condamné pour usurpation de fonction et d'un agent de sécurité. Les mises en cause ciblées des prostituées identifiées à travers des annonces et effectuées des descentes chez elles pour tout leur prendre. Et ces malfaiteurs ont déjà sévi à Keur Massar, Zac et à Ouest Foire. Terminons par le sport avec nos match des demi-finales du CHAN 2023. Les Nigériens défieront le pays hôte, l'Algérie, et les sensationnels malgaches feront face au Sénégal demain mardi et 31 janvier. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, nos confrères reviennent sur le rappel à Dieu de Serigne Modou Niang, promoteur de lutte qui nous a quittés à l'âge de 62 ans. Pour nos confrères du journal Sunu Lamb, l'arène est frappée par une grosse perte. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.